والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم، آه، di dellu si waat ci rejume yi nekkone ci partie masala usuliya yi bii weesu ñu ngi yemoon ci deuxième ensemble xadiis yi masala usuliya yi ñu fa jàngoon ñun toll woon ci juróom benn juróom yi dajoon jotoon nañ leen a gis muy ñetti hadith yi nga xamne mu doon hadithu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ak Abu umam al-Bahili ak Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma masala usul yi nag bee weesu dafa am ben ki buma faté won dama xamul peut-être remarqué wu ngeen ko won moy ne liñ waxon dañ ne Euh, bu ñu indee masala yi dañuy joxe avis yi après ñu wax avis bi ñu nootaloon ci kuur bi ak seeni dalil mais ñu ma xoolaatee dalilu par exemple ci côté mafhumul muxaalafa waxuma woon dalilu jumhur ndax dañ doon xanafiya yi naa alayhim ñoom ñoo ci d'accord loon ñoom lañ waxoon lan moo tax ñoom ñu ne d'accorduñ ci mais waxuñu woon waa jumhur ñoom ana lan mooy seen dañu indi woon rek tontu biñ tontu xanafiya yi hmm. rahmatullah alayhim après laa seetlu na ndek waxu kiiwuma ko woon hmm. ci kii bi euh, moo tax dañuy ñëwaat ci loolu insha allah boobu mooy premier bi deuxième bi moo doon euh, bi may wax ci mafhumul muwaafaqa benn be rek laa waxoon mafhumul muwaafaqa al awlawi boobu laa waxoon mais al musaawi dama ko fàtte woon ndax kon comme que noonu léegi ni ñuy commencer mooy mafhum pour ñëwaat ci tuuti mafhum mul muxaalafa ak wala mafhum rek mafhum mooy boo waxee li may dégg ci ginnaaw mooy par exemple mën naa nekk contraire yow li nga wax comme bu ma nee waa ji ku maandu la yow man nga cee dégg ne kon ki ci wetam maanduwul loolu yaa ko ci déggee ku mun ne sa sa livre kii la yaa ko ci déggee mais waxuma ko wala mooy yooyu loolu mooy mafhum léegi nag biy weesu dañ ne woon dafa mafhumul muwaafaqa ndax dafa amoon dañ ne woon mafhum yi la. moy mafhumul muwafaqa ak mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa moy man lima dege ci waji wax dañ newon dañu joxone ben exemple moy mafhumul muwaafaqa al awlawi bi nga xamne mo gina gën yey par exemple joxe woon nañ exemple bi yàlla ne euh faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu yàlla dane kep ko xamanteni da nga jëf subhanahu wa taala nga jëf lu toll ni atum wala lu ko gën a lu tol ni atum ci lu wala lu tuutee noonu ci lu baax di ko gis waaye tamit ku jëf lu toll noonu ci lu bon di ko gis léegi mafhumul mu mooy li ma al muwafaqa al mooy ne kon bu ma defee lu ëpp atum mooy c'est sûr que dama koy gis comme que dañ ma ne lu lu tuuti lii bu ma bu ma ko defee naa ko gis kon bu ma defee lu ëpp loolu comme lu toll ni montagne wala lu toll ni benn kër wala ainsi de wala lu ëpp lool ndax bon dama koy gis ndax c' est logique boobu moo doon première partie bi deuxième bi mooy al musawi mooy bi nga xamante ne nii ñoo yem par exemple bu yàlla ne euh, bu teree ne ñi nga xamante ni mu ne ñi nga xamante ni dañuy lekk inna alladina yakuluuna amwaal al yatama zulman innama yakuluuna fi butunihim naaran wa sayaslawna sa'ira mu ne ñi nga xamante ni dañuy lekk alalu jirim yi mooy orphelin yi nga xam ne seen baay moo gaañ fekk ñu nekk ndaw mooy majeur gu ñu mu ne ñi li nga xam ne dañuy lekk seen alal yi ñu leen seen baay bàyyi ci tooñ ndax loolu lekk ko rek mooy tooñ nga ci tooñ ndax am na foo xamante ni man nga cee lekk ci condition mais di ko def mooy jël alal ji di ko noosee di ko defe lu la neex wala di ko dugal ci commerce yoo xam ne yow leer na la li ëpp sa da perte mais nga ne naa ko ci dugal garaawul boobu lekk la tere mu ne ñooñu na na leen nañu xam ne nekkuñ ne ñu ngi lekk lu dul safara la ñuy lekk te bu yow mal xiyaam ñëwee dinañ leen safaraaw safara léegi loolu mooy ñiy lekk mooy ne yow mënoo ne par exemple xam nga man nga cee dégg ne euh, lekk la wax kon man bu mu ko jëloon may ko sama benn waay kon dara new ci dañ naan la c'est pareil ñoo yem ndax li ñuy bañ rek mooy nga jël alalu jàmbur ji nga moomul lañ bañ nga jël ko nga jël ko lekk ko yow directement ak nga may ko keneen ñoo yem nga lakk ko tamit c'est pareil boobu lañ fàtte woon ci côté mafhum yi léegi mu desoon li ñu waxoon sànq muy côté euh, dalilu Euh, waa jumhur jumhur moo doon Maliki rahmatullah alayhim xanaa yak Hanabila radiyallahu rahmatullah alayhim ñoom dañ ne woon mafhumul muxaalafa lay la Hanafiya yi dañ leen ne woon ñoom du lay lool moo nekkoon deux deux avis yi léegi nag comme niñ ko waxe woon liñ fàtte woon mooy indi layu jumhur lan moo tax yéen ngeen waaw mafhumul muwaafaqa no muxaalafa lay la mooy preuve la boo xam ne mën naa ko utiliser ci àtte àtte àtte yi àtte fiq yéeg yooyu mën naa ko utiliser lan moo ñu lan moo leen di wan nii yéen loolu layal ñoom ñu ne suñ premier preuve ñu première preuve mooy ne euh, suñu borom subhaanahu wa taala bi mu wàccee aaya bi nga xamante ni dane alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaa'ika lahumul amn wa hum muhtadun mu ne ñi nga xamante ne nii dañoo gëm ñu gëm gëm yàlla gëm dëggu te dëggu ci seenu ngëm te seenu ngëm jaxasuñu ci tooñ ñoom mooy ci kaw noonu loolu la aaya bi wax mu ne ñooñu ñi nga xamante ni mooy jaxasuñu ci tooñ mooy dañoo gëm yàlla ni ñu ko war a gëmee te jaxasuñu seenu ngëm tooñ ñooñu de ñoo am sécurité te dinañ leen te ñooñu mooy ñi nga xamante ni ñoom lañuy ñuy gindi ñoom la yàlla gindi léegi saxaaba yi ridwaanullah ta'ala alayhim ñoom saxaaba yi ridwaanullah anhum ñoom ñoom li li tax ñu ñëw ndax bi aaya bi wàccee dañu ñëw na yonente bi sallallahu alayhi dañoo ñëw wane ne vraiment affaire bi touché na leen ndax ñoom xamul ni ñuy def ndax gëm-gëm goo xamante ne nii moom day set wecc ba duñ ci boole tooñ loolu daal moom moom moo leen jaaxal ci aaya bi yonent bi sallallahu alayhi ne leen nag dalal seen xel ne leen ne déedéet ne leen tooñ googu ngeen dégg mooy xanaa déggu ngeen li ar rajulu saalih muy Luqman euh, mooy waxoon doomam ne ko sama doom yaa ya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim yow sama eh sama doom sama bul bokkaaleeg yàlla mukk mukk ndax de bokkaale ak yàlla tooñ la goo xamante ni bu rëy la tooñ rëy la mu ne leen tooñ boobu mooy shirk léegi ñoom fan lañ seen loolu noonu naka lañ ci tegtaloo naan ndax loolu laaj la mooy waa léegi yéen aaya bi ngeen wax nii lan moo lan moo may wan ne yéen ba léegi déggaguma li ngeen wax ñu ne waaw fi tegtaloo fi ñuy tegtaloo mooy ne aaya bi noonu bi mu ñëwee saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum lan moo tax ñu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir wane ko ne affaire bi xaw naa diis ci ñoom mooy ne dañ cee jàpp ne dañoo dégg ci ginnaaw wax ji ne képp koo xamante ne nii dangaa gëm yàlla te gëm nga jaxas ci tooñ yow nekkoo ci sécurité te yàlla gindiwul mooy dañ cee dog dégg contraire bi looloo tax ñu ñëw ngir wax ko yonent bi sallallahu alayhi mu tontu woon ci léegi loolu day wane ne kon te bi mu ñëw bi ñëwee wax ko ko neewu leen ne loolu mooy neewu leen ne déedéet loolu xalaat bu mel noonu ngeen am baaxul waxu leen ko au contraire da leen cee bàyyi ci noonu ci seen xalaat mooy compréhension boobu ñu ci am neewu leen compréhension bi baaxul da leen cee dëgërël mais nag wane leen ne non zulm boobu tooñ googu tekkiwul lool mais bokkaale lay tekki léegi mu am beneen beneen dalil boo xamante ne ni <coughs> mooy ne Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu moom dafa ñëw ne saxaabi la dafa laaj Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ne ko man ne ko man lan moo tax ñuy wàññi julli ba léegi te aaya bi lii la wax aaya bi mooy aaya bi doon واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان ان آه، خفتم ان يفتنكم الذين كفروا داني بودي داغينا نيك ان فواياج موي داغينا فواياج تي سوفسي امول بروبليم موي ماي نان لين بوسيبيليتي نين واني جولي بودي داغينا راغال نيغا خامتيني ay ñu gëmul yàlla lañ yéefar yi fitnaal leen mooy di leen peut-être bàyyi leen ba ngeen di julli rek ñu ray ñu fekk ne waaw kay gaa yaa ngi ñii lañ chaque fois ñu bëgg leen xare bu nekk xeex nañ fa ñoom ñu ngi nii seen l'occasion ñu koy julli nañ dem boom leen mooy bu ngeen nekkee ci période d'insécurité ngeen xalaat ne yéen a ngi en voyage wóorul fu nekk embuscade man na faa am bu ngeen di julli na ngeen wàññi julli ndax kat yéfer yi na len na xam len ne yéfer yi ay non lañ yu bir contre yi seeni non lañ yéen légui mom lool la laaj moy na la ndax dane wañi man ngeena wañi julli permettre nañ len ngeen wañi julli boudé da ragal yéfer yi fitna len wala ngeen ñu ngeen tabbi ci seenu fitna moy ñu len di embuscade wala yu démé non. léegi moom mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko nii nga ma ko laajee noonu laa ko laajoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais bi ma ko laajee dane ma lii permission la bu leen yàlla jox mooy ne nangu leen yàlla daa bëgg ngeen nangu nangu leen permission bi mu leen may même bu ngeen nekkee en période de sécurité jël leen ko yàllaa leen ko may yàlla du joxe ba pare di ko nanguwaat mooy mu jox mën na leen ne permission la bu leen yàlla jox nangu leen permission yàlla léegi foofu mooy lan mooy lan moo tax lan moo tax mu laajoon question bi mooy ne da dégg ne kon bu ñu nekkee comme que ne bu ngeen nekkee période d'insécurité wala ngeen seen noon yi di leen waa ngeen ragal to tàmbi ci seen seeni guet-apens wala yeneen man ngeen a fekk ngeen di tukki man ngeen a wàññi ñoom ñu dégg ci kon nag bu dee dëkk bi yëpp ñoo moom léegi lislaam tas na fépp ba frontière yëpp ñun ñoo ko moom dëkk yëpp mais pourquoi kon lu ñuy julli ji bu ñuy dem di voyage yi màkk par exemple jóge Medina comme que Makka léegi ay julli lañ Medina ay julli lañ dëkk yi fi nekk yëpp ay julli lañ mais moom dañu gis ne li taxoon ñu doon wàññi kon war naa dem ndax dane woon bu dee da ngeen a ragal yéefar yi fitnaal leen te loolu amatul kon ñoom dañ cee dégg ne comme que loolu dàqu na cause boobu kon ci yoon julli waratuñ koo wàññi. te compréhension boobu bi ko Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amee ñëw laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neewu ko sa compréhension bi baaxul loolu bokk na ci tegtal yi nga xamante ne ni ci gàttal mooy tegtalu Maalikiyya yeeg Shafi'iyya yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhim ci kaw Hanafiyya yi ne leen pour wan leen ni dal euh, mafhumul muxaalafa lay la léegi loolu lañ fàtte woon léegi nag mu des kon sixième bi waxoon nañ nekk euh, euh, ensemble xadis bi xadis yi muy deux bi trois bi ak quatre bi six masala usuliya la woon gisoon nañ cinq yi ci njàppalul yàlla léegi mu des benn bi benn bi muy afaalu rasuul muy jëfi yonent bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> euh, lan moo tax nag question bi ñëw mooy ci ah, bu ngeen fàttale ko ci taxriju xadis deux bi bu abi Saïdul Xudri bi radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Saïdul Xudri ci benn riwaay dane man dama romb yonent bi sallallahu alayhi muy jàpp ci toonu Budaa Budaa mu ne ko ndax mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay ci teen da jàpp ci teen bi te teen la boo xam ne dañ ciy sànni dañ ciy sànni yu salte yi dañ ciy sànni yu euh, euh, sër yi ñuy kii morceau yi ñuy utiliser bu ñuy gisee seen bërëb jigéen ñi ak xaj yi dee yi dañ leen ciy sànni nga ciy jàpp mu ne leen nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu ne innal ma'a tahurun la yunajjisu shay ndox dafa laab tey laabalaate dara du ko sobeel loolu mooy lim doon def noonu jëf la da doon jàpp léegi nag moo tax ci question usuliyya yi léegi nag loolu dafay posé wu mooy jëfi yonent bi sallallahu yan àtte lañ am par rapport ak jullit bi naka la jëf jëf ban àtte la am ci l'islam surtout ci côté usul biñ nek légui mom dañ koy dafa dañ ko dañ ko diviser en six six parties moy dafa am jëf yo xamante ni moy al af'alul jibiliya moy jëf yo xamante ni c'est naturel comme lan comme ñu ne yonent bi sallallahu bu doon dox tànk yi ci suuf lay laal mooy bu doon dox ci kaw suuf si lay dox xam nga loolu ñépp ñuy dox ci kaw suuf en tout cas ni ñu xamee ñuy dox ci kaw suuf lañuy dox seen tànk yi day laal suuf si doo gis ñu naan fii am na espace ñu ngi dox sans ñu laal suuf si mooy yu mel noonu comme wala tamit ñu ne bu doon dox comme loxo yi day yëngu nii comme ni ñuy def rek loolu noonu mooy façon affaire yu mel noonu usul yi euh, mooy boobu mooy première partie mooy ne loolu kenn du ne par exemple man maa ngi dox ci kaw suuf si maa ngi yëngal samay tànk wala boog maa ngi dox samay loxo di yëngatu rek ci kaw loolu rek nga ne maa ngi roy yonent bi sallallahu alayhi loolu mooy première partie sauf que nag am na am na leneen ndax bu waji waa sax dinañ ci ñëw ci kanam nañ bàyyi ba wax affaire yi ba pare lool moy premier bi mooy jëfu naturel yi nga xamné nit ko gis en général non lay dox wala non lay non la mel benen bi moy yi nga xamanteni adala moy la mooy afaalu al afaalul aadiya yi nga xamné adala comme mom Makka deuk par exemple arabe la arabe la won ñom amon nañ seeni ada par exemple comme lan comme yonent bi sallallahu alayhi euh, bokk na ci jëfu aada yi mooy comme lam waxoon saxaab yi saxaab yi radiyallahu ta'ala anhu bañ ko jox teelee benn plat benn kii mu ne mu kii ne moom lekkul ñu ne ko ndax dafa dafa xaram wala mu ne déedéet ndax suñu waa dëkk moom fi mu dëkk moom ñoom tàmmuñu lekk yi mooy ñoom xamuñu loolu loolu da ngay wan da lay da ngay yëg ne kon foofu te mujj gi bi mu kiiwee Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu moom moo lekk li ci des loolu day wane ne kon lii li mu wax noonu mooy dane la moom fi mu jóge kon loolu dañuy xam ne kon lool côté boobu noonu jëfu aada mooy ne ñoom daa am nuñ doon loo xam ne moom lañ doon lekk mu des beneen boobu mooy deuxième bi troisième bi moy lo xamantene ni nii jëf yoo xamante ne nii euh, moom yonent bi def ngir leral lo xamantene teneni, dafa xawa dafa konsi ci ci alquran comme bu yalla ne aqimus sala taxawal len julli xam nga yalla alquran subhanahu wa taala waxuñu nan lañuy julle ni ñuy julle ni amna yim ci wax rek di nga ci deg rukon mais ay ni muy demee nii niñ koy defee nii boo gisee benn julli di julli loolu alxuraan waxul lépp loolu bu dee yonent bi saa da koy def loolu dañ ko cee war a roy ndax moo ne sallu kamaa ra'aytumuni usalli ci xadiisu Maalik ibn al mu ne julli leen comme ni ngeen ma gisee man may jullee mooy jëf yu mel noonu nga xam ne da koy def ngir leeral dara ci biir ci alxuraan wala ci sunnaam loolu dañ ko cee war a roy kon loolu mooy mooy troisième bi wala troisième bi waaw léegi waaw léegi léegi quatrième bi muy loo xamante ni dafa nekk entre aada ak jaamu yàlla mooy ne affaire bi day leerul leer bu tax ñuy wax ba day indi léeg-léeg nga gis yenn borom xam-xam ne nii lañ ci comporté wa ñeneen ñu wax le contraire comme la comme bi muy dugg màkk bi muy euh, bi muy mooy aju aju ak i fatxu màkk dugge benn benn côté génne beneen côté am ñu ne loolu dañ ko mooy la mooy ne man naa am ndax jëf jooju man naa am ne da koo def ngir lan ngir ne lii ci ah mooy pour pour yu wane liñ ko war a luñ ko war a roye la man naa nekk ne bu ñuy dugg màkk par exemple kuy aji noonu nga war a du buntu boobu nga war a dugge booy génn génn beneen bunt bi mën naa nekk mais tamit ñeneen ñi ne mais tamit beneen possibilité am na mooy ne xëy na moom noonu la tàmme woon bu doon dugg màkk duggee foofu bu doon génn génne foofu loolu benn la teg ci beneen muy par exemple Euh, bu masoon a julli fajar ba euh, sax muy julli fajar mooy bu da masoon a ba pare ba julli ñaari rakkay da doon tëdd tuuti tëdd tuuti après ba Bilaal radiyallahu ta'ala anhu noddu ñëw noddu wala mu yëgal ko ne ko fajar jot na mu door a jóg léegi moo jëf jooju mooy tëddaat boobu mu tëddaat mu doon tëddaat est-ce que loolu moom jaamu yàlla la wala c'était naturel comme dafa sonnoon da dafa kii mooy ku naafile ba pare surtout heure yooyu man na soono pour reposer tuuti pour nga boo jógaatee di julli fajar sa yaram gina mën a supporter kii bi loolu nag mooy comme bu mel noonu comme tëdd boobu dafa am ci boroom xam-xam yi dafa am ñu ne lenn ci zahiriya yi am na ci zahiriya yi ñoo xamante ni surtout boobu noonu dañ ne affaire bi charte la sax pour julli ji bu baax condition la pour julli fajar bi baax mooy da war a tëddaat ndax da ngaa war a tëddaat tëdd boobu mais loolu incha allah li ñeneen ñi wax moo gin a moo gën a moo gën a dëgër mooy ne man nañ ko ko képp koo xamante ni da koy def mooy mën nga koo def. boo ko defee ngir roy yonent bi sallallahu alayhi mooy neen affaire bi dañ koo sopp rek boo ko defee lu baax la boo ko deful dara du la ci fekk kenn du la nen dañ laa day am pen bu la ciy fekk léegi loolu moo doon lan bi mooy quatrième cinquième bi mooy jëf joo xamante ne nii sallallahu alayhi da koo def mais xamuñu jëf ji euh, lan moo tax mu def ko mooy xamuñu lan moo tax mu def par exemple bi mu demee Makka bi muy aj euh, aj googu noonu mooy fóon bi muy fóon xajarul aswad mooy ne fóon googu est-ce que dañ est-ce que xamuñu lu tax mooy ne daal comme que gis nañ mu koy def dañ koy def comme le Seydina Omar waxoon ne bu ma gisul ne naan saa salaam di la fóon yow xajarul aswad man du ma la fóon mais ndax lan ndax xamuñu lan moo tax mu def mooy dafa am jëf yoo xam ne noonu la mel xamuñu lan moo tax mu def mais nag képp ko nag ku ko ci roy nag ngir roy ko ci ndax moom moo ko defoon mooy yàlla dala ciy fay léegi mu des dernier bi mooy loo xamante ni moom la jagoo mooy ne mooy lan mooy ne moom rek a ko war a def amul beneen jullit boo xam ne da ñëw naan maa ko doon kon war naa ko def déedéet comme amul benn jullit benn même bu nekkal ci gina baax ci sa époque manoo wax a wax a wax ba man nag <coughs> yonent bi sallallahu alayhi am na lu ëpp ñeenti soxna man damay am lu ñeent ndax maa ko doon walla amoon na lu ëpp ñeent man damay am quatre-vingt-dix ndax am am na ñu yam loolu mais loolu mooy jëf yooyu mooy moom moom moom moom moom rek moo ko waroon ci moom la nekk moom moo ko war a def mais ñun mënuñu ko cee roy naka noonu tamit comme julli après tàkkusaan julli après tàkkusaan ndax moom da koo tere mooy li Seydina euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bi mu ne shahida indi rijalun mardiyuna ardaahum indi Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne am na ay nit ay ay ay góor yàlla ay góor yoo xamante ni ay nit ñu ñëw ñu ma seedeel ne mooy jox ma information bi te ñooñu ñi ma ci gina naw ñi ma ki ma ci gina teg ci kaw mooy Seydina Omar nee na nee na yonent bi sallallahu nee na amul julli mooy kenn du julli après julli fajar lu dul jant bi dafa dafa dafa dafa dafa feeñ waaye tamit amul julli après julli tàkkusaan lu dul ne kii bi dafa dafa duggaat jant bi dafa dugg loolu mooy kon yaw tàkkusaan ba foofu waroo ko julli mais moom mas na ko julli ñu laaj ko ne ko waa ñëw dañoon da soxna uh, Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha laaj ko na ko ñun gis dama naa gis ngay julli julli boo xam ne yow doonoo ko woon julli mooy danga ñu koo tere woon bokk mu ne ko moom daa am benn délégation bu fi ñëwoon taxoon ba julliwul woon mooy raatib yooyu ñuy julli avant ak après moom julliwu ko woon benn léegi moom la doon fay noonu mooy loolu moom rek la moom moom la ko moom jagleelam amul keneen kuy ñëw naan man waaye comme que noonu la man tamit damay ñëw déedéet dañ naan la yow moom bokkoo ci moo takk lu ëpp ñeenti soxnaa yem yow manoo ko léegi nag mu des benn affaire mooy yi ñu wax yépp ne kenn du ko ci roy euh, képp koo xamante ni da ne man dama koy def mooy ne lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon lekk tel plat man ma ne xam nga gars yi nee lekk yooyu boobu kenn du ko nekkul ne dañ naan la da ko cee war a roy mais képp ko ne man dama koo bëgg ndax li ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon yow dañ la ciy fay ndax loolu loolu moo taxoon euh, Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom doon topp yu mel noonu fu mu gis foo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi bu doon tukki mas na fa taxaw julli fa bu demee di bu doon tukki jaar fa lu mu yàkkamti yàkkamti dina fa wàcc julli ko door a dem bu tuuree ndox fenn moom it lu mu yàkkamti yàkkamti dina fa tuur ndox moo tax it bu ñuy ñëw sax ci tarjamaam dinañ ko gis insha allah euh, Naafi euh, wala Salim bu ma juumul radiyallahu rahmatullah alayhima nee na Seydina euh, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom doon na def léeg-léeg mu doon dem di yor benn kii di arroser benn garab boo xamante ne ni chaque lekk dafa doon dem di ko arroser ñu laaj ko lan moo tax mu ne ndax daa gisoo ne nabi sallallahu alayhi wasallam taxawoon fii doon fi kerloo moo taxoon mu ko doon arroser ngir garab gi bañ a dee ngir wan ne mooy yooyu boo koy def kooku dañ ko ciy fay bokkul ak ki nga xam ne daan non yooyu kenn waaye ñun daal julli lañ ñu wax ay kii ak yooyu ñun yooyu lañ yooyu lañ ñu royloo déedéet mooy ne moo tax kii def lu mel noonu mooy ne ku bëgg dara ndax yonent bi saa da ko doon def même bu dul li nga xam ne dañ ko cee war a roy yow yàlla dala ciy fay loolu ci gàttal moo doon siisi ci kaw loolu kon ci la masala yi jëmoon ci partie boobu insha allah euh, yàlla na euh, ci mbaaxu yàlla jeex na léegi kon mu des xadis numéro cinq bi muy xadis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mooy bi yonente saa sallam dox di tere ku saw ci ndox moo xamante ni dafa takk te mooy bi nga xam ne du daw